yéenekaay yi dañ ci ànd ak Hadj Assane Guèye yéenekaay yu bari xëy dellu si ci kàddu yi 3 avril yu président Sall ak maaj ga woon démbit ci 4 avril gi ci réew mi ñeel feet ak indépendance observateur jàpp ci kàddu yi président milliards yu bari yu ne na ko ca ay diggee na ko noonu liggéey yu mu defagum ba fii yéenekaay bi ne jàngalekat yi nag duñu saf ñu doon lekk ba ca digg ba ñu téye seeni yoxo ndax la doon yaakaar mu jun ko dégg docteur yi ñoom yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne seen xel dal na ci kàddu yi président waaye nag ñu ngi yeeru di ko may gët ba xam kàddu yi président jëkkeroog avril nag biñ dëgmalee feet ak indépendance gi la quotidien paquetage la ko tuddee taxañ gi ñeel wàllum karange njàng mi wér-gu-yaram ak yeneen Walfadjri gis ne président discours premier ministre la amal keroog di moytu yi ëpp solo ñu doon ci moom ne fay diggee rek rawatina jëmee ci jàngalekat yi ne ci grève direct info ne loo ci mën di dégg nag moom feet gi démb neexoon na di ci l'armée bi di ci ndaw ñi yéene kaay bi mel ni nag kuy rëccu la cee njiiti réew Afrique sowu yi teewul ak opposition bu Sénégal direct info fàttaliku ci weneen wàll bisab démb bi ndem si yàlla Doudou Ndiaye ku mboq Croix-Rouge waaye it Amadou Mbaye Loum ndax seeni waar yi daa bay ci anam yu rafet bu indépendance massa jot le soleil xëy ne défilé soldaar gi seeni jumtukaay défilé civil gi lépp démb ak la kàddu yi président Sall ëmb lépp a dal xel vox populi ne président diggée na joxi ngaa naa yeneen l'armée bi déwén nag at ya ca topp chef de village yi ba tey ak yéenekaay bi di vox populi mel ni ku naan ko déet président balaa yokki char de combat ki yeneen delloonu sunuy salaire ak sunuy wote yéenekaay bi di réew mi seetlu gi indépendance ci boppam la nit ñi xëratul Idrissa Seck ci le quotidien ginnaaw kàddu yi président Sall ne la ca desoon rek mooy mu jéggulu waa Sénégal jéggulu ndaw ñi amul xëy jéggulu mag ñi nga xamante ni moom ak Abdoulaye Wade baaxee woon nañ leen plan Sésame Idrissa Seck ci le quotidien dem ba naan way Youssou Ndour bi di jéggalu la koy may moom président Sall Seydou Gueye porte-parole bu gouvernement bi ci laas ne wax Idrissa Seck du wax ju xóot du wax ju jariñe wax ji ak tambaambalu git mu jàpp ne ci réew mi du ko jural dara njabootug Abdoulaye Wade gi nag Seydou Gueye ne Wade bu mu ca mën a doon leen ko daan kàddu yi Abdoulaye Bathily joxu ko génn ak solo ndax mu ne comprendre na Bathily mi nga xamante ni am ci élection cinq pour mel ni ku leen di nag xëbale ak jubóog Abdoulaye Wade ndax ci direct info nga cay dellu naan Karim Wade dig na ko jubóole ko bàyyi ja Abdoulaye ndax nag mu ne Karim xamal na ko ne xippi na la gëd ya na lu bari la cloche ne ginnaaw téléphone Karim Wade Idrissa Seck gindi ko amaat na diggam ak njabootu Wade gi njabootu Diaz moom di yëglu ba tey ak la cloche ñu jàng ci démb ne ci kaso bi njaboot gi di xamal nag kilifteefal kaso bi ne lépp lu ko fa dal ñooma 4 avril bi du rek nag président moo ci yëkkati kàddu Bougane Gueye Dany njiital D-Média di njiital mouvement gëm sa bopp daal dina yëkkati kaddu ci la tribune ci li waral mu ne muy wër réew mi boobaak léegi ca jànn Malaaxi ci bët saalum bu Sénégal la yëkkatee kàddu ne nag taxaw jot na jóg na ko noonu ngir daal di génne Sénégal ci guute gi mu ne 60 ans mu ne daanaka ci loxoy politiciens professionnels ca nag du benn jéego buñ defal réew mi du benn performance Sénégal mu ne tey ci réew yi gën a ndóol réew yi nu gën a dimbali réew yi ëppi bor élection yi ñëw nag moom Bougane Gueye Dany ginnaaw ba mu wëree réew bi déglu askan wi ñaari yoon la gis ne fi sës benn ñu dem ci changement ci lu wér soppi wala ñu wéy ak politiciens yi rek yi nga xamante ni seen pexe du leen lu may guddal seen guur ak seen i ngëneel moo leen gën a yitteel mu ne yitte askan wi yitte askan woowe nag bokk na ci wàllum kaaraange ak lu leen di tàqale ak saay-saay si rey ak sàcc seen i doom xëy ne loolee président Sall tontu yomu ci indi mooy fas yéene ci mbedd yëpp daal di fa dugali vidéo surveillance

combat taxaw na observateur ne promoteur buñ naan Mor Cissé moo fa jaar tegal ko six bi tar ñi daan Amina ci gàttal dugaat na ci buumu sëy yéeni kaay bu groupe Futurs Médias ne sunu goro nag wata bu bees sàq la ko jox bind ca plaque ba Amina Poté teg ca wéyale ànd ak moom ca Dubaï ngir lune de miel waaw karo bu